dafa ñëw ci bis bi ñu fas yéene koo laaj ay kàddu salaamaaleykum guy gi ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi salaam si ñu ngi lay fay ñu waa si. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi jàmm. waaw ñu la doon laaj tey ci bisu xaara caam bi loo ci xam. waaw maa ngi nuyu àdduna di balaax ñëpp di balaax ñëpp di nuyu géewaay di nuyu école it Mor Fadam bi yëpp suma rakk yi ñoom Pambaay Mbaytin booy grand saada xam nuyu naa ñëpp yee waaw waaw. kàddu yi rafet na. waaw Saada sunu grand la. sunu mag la ku am lu mu la. moom am fu ñu toll ñu ànd ak moom ci loolu ñun du même porte qu'il programme la ñuy dugg mais buñ décorosé pour dugg rek yaa quelque chose positif am négatif am moom dafa nekk côté positif bi négatif bi ñun xooluñu ko di ko jàppale lim sumb yàlla may ko ci ndam di nuyu ñëpp nag askan wi. jaajëf kàddu yi na guy gi bu ko defee daa mel ni Sada Thiam lañ fi ñu wax ak Sada salaamaaleykum. maaleykum salaam. Sada tey nag ñu lay laaj ay kàddu sa bis bi rek ak mbooloo mi ngi fi gis nii sa xol daal nan la def daal ba nga gisee nii. sama xol tooy di wax alhamdulilah rabbil alamin bu ñu sant suñu borom julli ci bi sant suñu ñaari waajur damay sant mbooloo bi yëpp ñaaw ma seen fay naan feccum lii su neexee waajur yee tee ci bag yi man maay seen bopp waay ñooy sama baat tey doole jën ndox tey wan nañ ma ñooy sama doole. xam nañ lu tax nag may xeex seen bopp la ñuy xeexal ne tey bis bi dafa àlaa daw bi parce que soo mag ñi ñëw nañ xale yi wuy si nañ paa yi wuy si nañ jigéen yi wuy si nañ pour ande kon saadañ jàppal ma jàpp mu woote c'est une réalité bàyyul benn couche sociale toute la toute de valeur ku ci nekk ak foo mën a nekk woo na la nañ ànd liggéey pour jëmale suñu commune ci kaw commune Ndiarème Limamoulaye te tey loolu comprendre nañ ko comprendre nañ ko Saada comprendre nañ engagement Sada comprendre nañ vision Sada di wax maa ngi leen di sant di leen gërëm pour un pour un Ndiarème émergent pour notre commune émergente pour wane ne tey message moo bëggoon lancé jàll na tey xool nga acteurs culturels yi ñëw nañ côté sport bi mbër yi ñëw nañ soo xoolee côté religieux bi notable yi ñëw nañ chef religieux yi ñëw nañ ah jigéen ñi daan seen doole mën góor ñëw nañ benn couche sociale yëpp a tey wuy si ci li nga xam ne moom la Sada woote muy ma jàpp pour suñu commune jëm ci kanam. kàddu yi rafet na Sada. waaw bu ko defee daa mel ni première dame la ñuy gis ñu fas yéenee wax ak moom soxna. waaw ça va. ñoo ngi la. daa mel ni première dame la ñuy gis nii de. Ah. waaw tur bi nan. Garmi. waaw tey ñu lay laaj daal loo xam daal ci bisu Sada Thiam bi ak nit nuñ ko wisee nii sa xol nan la dem. bi nii rek la mënoon a mel. bis bi a wax nag ngeen baal ma. Kadi la fè nan. Ok, mersi.